solo su tiini saaru tiini bani makkiyatin kajal makkala aw madaniyati samaanu ayatin juróom yatti aaya la allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi sa suma wax sama ci tudd tudd bu rahman gadaaji xewal mi laaw ni gadaaji xewal ci daal ci alaxira wa ma gën mooy gën bi ñuy lekk wa saytuuni gëñe na ma saytuun mooy saytuun si ñuy lekk wala wattiin nga jële wattiin aw doj la wa saytuun yi nga jële wa saytuun doj la jabay di moom di te waxee saa doon dumb wa tuuri siniina nga jële naa tuuri siniina naa tuuri siniina jub jub tegtal na lëm namm ci ñaari baat yi ko jëkkoon doj ya doj wa tudd tiin ak doj wa tudd saytuun ñëpp ca saam lañ nekkoon saytuun nag ñooy fay ibnu Mariama fële doon dund balay ba damat ba ko yàlla yónni loolu si mooy daj waa yàlla doon waxee yonent yàlla Muusaa waxaagal baladi jëñ naa ci biir dëkk lamin yi ba di bu ñu woonu mooy Makka yàlla jëñ na ci ñetti barab jëñ na ci saytoon doj wa nga xam ne Isa ibnu Mariama xalifa xalifa yàlla ci jamonoom bala dëkkoon géej na ci tuuru Siina nga xam ne Muusa ibnu Imraan bala doon deyaaleeg boromam géej na ci Makka nga xam ne yonent yàlla Muhammad bala juddoo bala doon ba ñëli ko laa ngi ci linjiil wax ne yàlla ñëw na jóge tuuru Sinaa ñëw Zeytuun gannaaw ga mu jublu Makka réeral na ñun linjiil ñu def Isaa muy yàlla fekk lum ca jubloo ku ci ne mooy xalifa yàlla ci jamonoom rek waaja woon ca tuuru Sinaa di yàlla yàlla booba mooy xalifa yàlla ci jamonoom waaja woon ca Zeytuun Iisaa ibnu Maryama boobu mooy xalifa yàlla ci jamono waaja ca Makka kooku mooy xalifa yàlla de mboole mi jamono dama doon géej nag laqad xalaqnaa wallaahi bind nanu ninsaana nit fi ahsani taqwiimin ci gën jarafeti bind de loolu yàlla doon géej yàlla bind doomu aadama te bind na ko ci bind ba gën a rafet loolee ñu yàlla bind bindab doomu aadama la ci gën a rafetal moom la ci gën a matal bàyyi na yëpp dañuy taxawal ñeneen tànk jiitu seen bopp jëm suuf ñu jottali ko lépp lu ñuy lekk seen jëliñ doomu aadama yàlla bind ko bind bu mat bii mu taxawal ñaari tànkam boppam féete kaw muy lekk loxo mu teral góor ñi ak sikkim teral jigéen ñi ak jubb bind leen bind bu dëgër bi mu leen bind bind rafet bi leen bind bind bu mat bi leen bind ba ñuy wax doomu aadama rek ay wax ci yàlla bind moo tax mbindeef muy wax soo ko waxee rek tudd nga doomu aadama moo tax nit làmmiñam a jenn wàllam jenn wàll di ci def mooy xolam di ci def yëpp yàpp ak dara rek la naka ko bàyyi may xamee moo te yàlla ngi bind ci lan ci meloom nit ci tuddu muhammadu bopp bi miim la mbëgg mi aadam dellu la nit bi mel miim la tànk yi deel la nit ku nekk rek Muhammadu mu taxawal moo tax suñu sëriñ dem safara dañuy soppi seen bind yi def leen ay golo ci ndax turam ñu génn ci bind Muhammadu ñu ñu nekk waaye turu Muhammadu yi du dem safara yàllaa leen bind nag ci bind ba gën a rafet su ma rafet naa ko topp nu delloo ko ak sala saafirina muy nit ki rafet Tanaram. nit ki yàlla ay way suufe yére yàlla bind nit ki mu gën a rafet lépp lu rafet gannaaw ko mu delloo ko ba mu gën a ñaaw lépp lu ñaaw mooy ba muy waxambaane taaram jéggi na day day dayo dayo jigéen ba muy jànq taaram dafay jéggi dayo ndax booba yàlla ngay pare njëpp la ku ci nekk mu rafetal ko bëgg ko moroomam gisee bëgg ko ba si ñoom kat kat loolu njëpp loolu du dañ lu may boo xamee ne jigéen am na ñoom fukki at ak juróom ngirtam daal di dog mbërëgam daal nga xam ne yàlla arit dina ngir di la foofu buur itam su demee ay métit ak feebar ak màggat ñàkk kattan dal dikk ci moom nga xam ne yàlla ngay arrêté ngir la ay seeti gouvernement yi xarit na ko ca waxtu moom jotee da nga màggatee ba gën a màggat nag moom lay wax ne mooy asfala saafiliin illa alladina dara ñaaña amanu gëm nañu wa amilu dañ jëf saalihaati farata ak naa fi réere doomu aadama ñu delloo gëm gën a suufe nag génn nañ ca ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf-jëf ji yu de falahum ñaan ajrun yool xayru mamnuun buñ dog kon nag as solo saafi dina du màggat li tëdd gën a mat gannaaw ga mu delloo ko mu gën suufee way suufee yi mooy ña yàlla mooy yàlla bind na nit ki def na ci moom jikko yi malaaka naa xam yàlla di jaamu yàlla jaamu ko sell naka malaaka man def na ci moom jikko yi mën naa nekk seytaane yàqkat buruj kët ba mel ni seytaane mën naa nekk bàyyi ma di topp baneexam dara du soxlaa nu ne bii dama payam mën naa nekk itam gor buy fàdd dara du soxlaa nu may tuur deret su fekkee ni nit ki wëcc na boppam ak seytaane da nga xam ne pexe lu bon ak def lu bon rek mooy liggéeyam léegi seytaane la nekkatul nit kon dellu na di asfala saafiliin te moo gën a bon seytaane su fekkee ni topp na bii dana pëyam rek de fàtte yàlla bàyyi topp yàlla dëkk ci mooy yàlla nekkatul nit ko kon bàyyi ma la te moo gën a xees bàyyi ma kooku nit dellu na asfala saafiliin su fekkee ni topp na mer ak fàdd ba nga xam ne ci dara nekk na gar te bon dellu na ba ci asfala saafiliin waaye itam su xeexeeg ba kanam bar laawal ko ci yooyu te am boromam di jaamu boromam jaamu gu sell na malaaka yi kon mujj na di malaaka kon moo gën malaaka yi de moo tax asfala saafiliina fekk nañ ci ilal si naa amoon waa ak dinaa wax ci saa yi ñëw léegi mais waaye doomu xayrul bariati ne doomu mooy gën di mbindeef naka mu waxee ci doomu aadama ne mooy mooy kees di su yàqoo ba dem ci asfala saafilina kon nag mooy kees di mbindeef waaye su baaxee itam ba gis ca la kon mooy gën di mbindeef ne mooy que suñu kaanam nga doon wedd wala baalu ca gannaaw di diine ci pay wala yàlla mën naa def ma ne lu tax ngay weddi lañ koy jëm yàlla alaysa laahu déet yàlla bi ahkamul haakimiin aji àtte way àtte ñi maanaam ku jàng wati ba ca na nga wax balee waaw la leen ko muy changé. jàng ba nekk ak bala saa bi la dellu dana màggat te dama mënoon yëpp dootu moo tax ne. nit bu màggatee yàlla dafay wax ne sama jaam bi mën a tuut dara dee leen ko bindal jëf ju rafet jëm doon jëf ba muy xale dégg ngeen xale yi jëf ju rafet ja ngay def ba ngay xale soo màggatee ba mën a toog loolu lañ lay fay soo ne xale laa ma dara waruma ba màggat ñëw nag mën a toog kañ ngay am gën ci dund mooy jamono ndaw barke dund mooy jamono ndaw soo jëkkee ba màggat nag ba mën a tuut lan doon def ci sa ndaw yàlla ne bindal leen ko gën ci lu mu doon def ba muy nelaw kooku moo tax de yonent na ne genn wàll fay nga ca nit di am genn wàll fay ci taxaw lu màggat ba xam juróom benn fukki at ba ko julli itam yàlla taxaw lay am fekkee ni da ngaa ba sonn itam soo nga bari ko julli yàlla taxaw ngay am bu gëppali ko julli dana am yoolab taxaw de am naa xale bu gëppali ko julli nag genn wàll ak pay lay am loolu kat dinaa bi daa tax ñu ni ko